ay snapper am fi de ay journaliste yu fi am. daa am ay snapper am. benn benn snapper waaw moo leer. seen image yi na ngeen ko defar bu ma ñuul de ba pare bu leen ma jël defal ma ay àqal dama jekk tey jongo ma gis nga ma nii waaye man tey indo lay ndural wala naar maa ngi mel ne xale naar buy doog a jub. ba. ren ñu wàcc jonti na léegi yow xool nga ne mas mas koy ma def tay do léegi loo leen bëgg a laaj dañu laaj mu gaaw waaw mais maam maam ñu gis la nga nga teew tey ci ci bésu maman vulgaire bi muy un an de mm-hmm. doon ñëw ba ba ba xew bi doon am nag fekkoon na nga amoon lu ndaw loo xam ne xawoon na xew seen diggante. dëgg la tey jii yi nga fekk ko jàmm ak moom seen diggante gën a dëgër. waaw may taxawaay di xew bi nan la. kontaan bu baax a baax di leen nuyu yéen fi daje. kontaan ci bésu maman bu baax a baax eh, yàlla moo ne woon uh, xew mi du ma ñëw. waaye yàlla moo moo moo moo defaat moo war ñëw ci ci première euh, fête de mariage hmm. ma koy ànd ak moom nag di ci kontante bu baax a baax di ci ànd ak moom ak fier hmm. kontante parce que nit amul lu dul bisam te nit kenn du ko xeebal bisam hmm. euh, léegi sa teewaay lan sa teewaay lan lan moo ko waral aussi tamit euh, lan nga nar tey ji ci bésu maman vulgaire waa tey nañu xaar surprise yëpp incha allah nañu xaar surprise yëpp tubaarkaal la parce que ñun ay garme lañ euh, tubaarkaal la te ñun ay ay ay kii lañ nuñ ko waxee ay tooroo da sàmm ngaari jamaal lañ ñun deretu góor mooy daw suñu yaram te nit bu nee xaw ma nu ma la def ni mu la defe tax moo tax suñu ne tey dañoo fas yéenee ñëw bokk ak moom mbégte bi di ko ñaanal nag yàlla defal ko jàmm ak salaam ci sëyam bi ba mu ciy dégg maam di ci dégg sët sëtaat ci daraje Alaaji Fàllu Mbàkke fàllaw bu sa jot réew ma caamiñal mayam mais maam xew bi yaakaar nga jàmm dina ci am ren tey jii tey jii xew bi jàmm dina ci am dinañ gis maam Ndiaye Savon ànd ak dal ñëw teral ñi nga xam ne ñoom la war a teral xew bi neex mu ambiance comme ni ko ñëpp xamee jàmm rek moo fi am ndax ci ki xewle sama nawle la euh, di profito waale di jéggalu vraiment mhm. euh, business ndax nit ku baax la dafay ñu ko bisam mhm. di ci jéggalu bu baax di jéggalu waat sénégalais bu baax a baax ah. euh, kooku du Mame Ndiaye dafa ni dafa di bis bu ne ak li suñu xew mhm. te nit ku nekk gor nga te gor kenn du ko topp ba mu sës gor kenn du ko topp ba mu sës te boo ko toppee ba mu sës te day claqué mais xewu moment bi dañ ci ñëw bisimilah rahmaan rahim dellu ci waat ci alhamdulilah rabbil alamin euh, li may wax sénégalais yi daal mooy euh, pour ñu xam ni man awma fenn sens interdit mm. ku ma yëgal xew ma war a dem damay dem ku ma yëgal ngénte ma war a dem damay dem aw ma fenn sens interdit parce que fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee te fii laa prouvé te fii laay ànd ak sénégalais te waxtu am bal tax mais maam li ñu seetlu ci xew parce que maam ñëpp bu ko ñëpp xamee tamit xam nañ ne maam ku baax la maam koo xam ne dafa yëg nit maam dafa social maam day dimbale ay nit bu ñu toogee gis ay nit yoo xam ne surtout góor bi bi mel ni engagé ñëw taxaw publiquement di la gaaruwaale ba yow nga am benn réaction boo xam ne defloo ko ci biir xew bi loolu noonu ñu koy faral gis ci maam maam est-ce que jotul mu xaw a indi tempérament mu xam ne moom la fi yàlla teg mu nangu tamit lu yàlla gaa yi tamit nangu lu yàlla dogal. waaw xam nga nit ñi bokkuñu man dofuma ginne jàpp ma bay dem ci xewu jàmbur di fa xeex. dëgg la. ndax yàgg naa dem xew personnalité laa fay wane. Hmm. may géwél yi ma war a may te dem sama yoon. Hmm. waaye Sénégal moo baaxoo ne nit ñi dañu mën a tooñ te dañ lay tooñ dañ lay sës ba ci miir wis bi ndax tey nga ànd ak sa nit waxal ko lu baax kenn mënu ci dara man maay kan ba kenn du waxal nit lu baax bañu ma ko waxal nit lu baax hmm. mais dem ba mais dem ba di ba di la gaaruwaale ci biir gaaruwaale yi gaaruwaale wu ma dafa jàkkaarloo ak man ñëw ba fi ma toog di ma wax n'importe quoi c'est pas normal loolu moo tax ma histoire ak moom mais man loolu du sama habitude man xam nga la laa xam dem ci xew ñëw ci xew teral borom xew mi teral géwél yi ambiance ñibbi mais Sénégal ñoo baaxoo loo xam ni euh, dañuy profité ci problème mu jàmbur dañuy profité ci coowu jàmbur dañuy profité ci sa faiblesse te man sama faiblesse kenn di ci profité loolu duma ko nangu duma ko may kenn ku yàlla bind fii ñëppay waxal nit lu baax ku ànd ak nit di ko waxal lu baax hmm. mais nit da am foo yam am looy bëgg am looy bañ surtout maa góor walul nangu yenn yii te man maa jiitu ci xew mi ngeen ñëw nuyu woo leen ma ñu leen ni way ma toog tegle sama tànk mais xanaa kon maa daw coow ñu may way ma jug ma jub def lu la neex ma boole fatta ak organiser dellu sama place nga fekkaat ma fa kooku bëggul jàmm loolu moo tax te di ci jéggalu sénégalais parce que du sama habitude man xaw ma loolu ambiance laa xam ak kaf ak foo ak mais nag gaynde laa xale duma yàpp dëgg la jàng nañ ci leçon bu baax sa digganteeg sa waajur bu jigéen gis nañ ne sa yaay yi gis nañ ko tey mu def témoignage yu daw yaram ba jooy ci euh, People 221 ban euh, jàngat nga def ci loolu ak sa digganteeg sa yaay ndeke ñu bëri dañoo réeree sa mbir sa digganteeg sa yaay tey jii la ñu xam lu bëri. sama yaay dégg naa bi ma jógee man ak moom bokkuñu kër moom mi ci këram man maa sama kër dégg naa bi ma jógee xew bi mu dugg ci internet bi dégg nii dañ ma doon xas xew mi da doon jooy. sama mag bu jigéen ne ko yow lan ngay jooy mu ne ko damay jooy ndax xam nga lu tax kii méritoowul lii ndax mooy doom ji ma njëkk a jox bànneex kon méritoowul lii xam yëpp ñoo am problème comme Sénégal lañ nekk mhm. da ngay génn wax ñu jël ko jox ko ki ka neex ndax tiktok ngay nekk sax di wax di ambiance ñu taf kenn waaye ban nday ban doom mooy sàlloo ndayam xale yi maa leen gën nday gën leen bàyyi sama yaay doomam moo gën seeni moo moo moo gën xale yi parce que bi tedd jotee dama liggéey trouvé teral sama nday man bi may teral sama ndey à l'âge de 12 ans la. bi may teral sama ndey xale teralul ndeyam man musuma am cheveux musuma am greffage musuma am yére yu xewoon léegi laa commencé sañse te sama yaay moo taxoon ma sonn kon tey nit du teral ndeyam ba egsi fii baya baya bay ba war a góog ngeen ne ko du fi góogee loolu du am te ma wax la benn affaire maas gis nga say commerce la bu sa yaay rek la perte nga dem tëdd. man dama fekk sama yaay yor magasin ma def ko grossiste diñ am personnalité sama yaay fi mu sonnee fa laa ko tontulee ay noonam te buy toxu da ngeen di ñëw yéen ñëpp tabaxuma premier étage tabaxuma deuxième tabaxuma troisième quatrième laa tabax te quatrième lu yowuma ko sama famille laa ko tabaxal man li may def ci mbedd mi sama famille la njëkkee mais nit ñi dañuy profité ci problème mu jàmbur occasion hmm. parce que nag ki lay dàq te te jotu lu mm. mu jot dala koy xaaj. dëgg la ndax tubaarkàlla dama ne ci réew mii. Mm. ne ku yor preuve bu ma baal lu toll ni tarafata am dóor ko ci taabul bi preuve amul lii fii la ñu occasion waale luy loolu yow. ah même Mar est ce même maam est ce xam nga ne gars yi ñoo ngi ñoo ngi coow coow coow ba nga ba nga génnee ci sa divorce bi ba léegi dangaa gën a bind gën a leer. gën a jekk gën gën a jekk. di leen jox gën a taaru lool. <laughs> Ah? maa xam nga ne maa réew mi la gën a bëgg. réew mi dina daanu. ah bientôt. mariage mariage. mais man gis naa ko mu def salade si bërki démb naan ñaareel yooyu noonu. maman ah. gis naa mu def salade si bërki démb naan ay ñaareel ak yooyu. ah ñaareel loolu de yëguñ ko woon. ah, ah guy gi. <laughs> kontaan naa may leen ma ma waat. <laughs>